éviter à toutes les dérives. De telles pratiques, y compris celles consistant à contracter des crédits bancaires hors du circuit de contrôle budgétaire, ouvrent la voie des dérives dans l'utilisation discrétionnaire des ressources. Le Trésor public s'est retrouvé dans une situation où il n'est au courant de ses opérations qu'au moment de leur effectivité ou au moment du remboursement des prêts contractés. Je pense sur toutes les mauvaises pratiques qui ont permis à des lobbies politico-affairistes de détourner une bonne partie de ces fonds de leur destination en s'enrichissant indûment à coups de centaines de milliards. Il en va de la pratique des remises gracieuses. Il en va la pratique des remises gracieuses. Et chacun de ces points que j'évoque va faire l'objet plus tard d'un exposé qui permettra aux Sénégalais d'apprécier le carnage qui a été organisé. Il en va de la pratique des remises gracieuses, des fausses exonérations fiscales, celle des acquiescements ou autres rachats de créances, celle des certificats nominatifs d'obligation, de l'accaparement foncier et la privatisation illégale du patrimoine bâti de l'État au profit de la famille, au profit du griot, au profit des amis Et dans les jours à venir, vous les détails par rapport à ces même lieu de s'interroger sur les conditions d'attribution des marchés d'approvisionnement des pays en hydrocarbures. Et sur le de 605 milliards de l'exercice 2023, une bonne partie a été effectivement utilisée en couverture d'opérations extra-budgétaires. La vérité n'a pas été dite aux sur ce dossier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais nous n'avons pas trouvé, nous ressources dans les caisses, ou alors une bonne partie de cette somme, lorsque le président Diomaye prenait fonction. Les responsabilités devront être situées, le ministre de la Justice en a parlé, de tous ceux qui ont eu à jouer un rôle. J'ai parlé du ministre Moustapha J'ai parlé du ministre et du Premier ministre Amadouba. J'ai parlé du ministre des Finances Abdoulaye Daouda jallo Monsieur le Président de la République Macky Sall, qui ne pouvait ignorer ces pratiques, devront expliquer aux Sénégalais pourquoi et comment ils ont pu plonger le pays dans cette situation. Si on le fait, c'est parce qu'il est indispensable, d'autant que nous allons demander aux Sénégalais de consentir à des efforts extrêmement importants ces, les années à venir. Le ministre de l'économie en a abordé certains sur la subvention, sur la fiscalité et sur beaucoup d'autres aspects. Vous ne pouvez pas demander au peuple de faire ces efforts sans pour autant que ceux qui sont les auteurs de ce carnage puissent venir justifier devant ce même peuple leurs actes. Et c'est extrêmement important. Mais je ne voudrais pas terminer sur une note négative. Je veux parler au peuple sénégalais. La situation est certes pas reluisante. Nous nous y attendions, même si ce qu'on découvre dépasse l'entendement. Mais elle n'est pas irrécupérable pour autant. On a beaucoup parlé de nos relations avec les partenaires. Moi, je crois d'abord et surtout à nos efforts endogènes pour faire face à cette situation et prendre notre destin en main. À un peuple qui veut, rien n'est impossible. Et ma conviction, c'est que le peuple sénégalais veut. Et il a aujourd'hui la locomotive qu'il faut. Il a des dirigeants, et je le dis ici, sans fausse modestie, il a des dirigeants intègres, compétents, avec une vision qui sera présentée, qui a été présentée, mais qui sera opérationnalisée à partir du octobre. Des équipes dynamiques, majoritairement jeunes, qui ne ménagent aucun effort pour atteindre le résultat, qui sont dans un engagement patriotique, désintéressés. Pour que ça marche, il faut que le peuple se hisse à la hauteur de ce, de ce leadership, en l'accompagnant en privilégiant le débat qualitatif, en répondant présent à l'effort de développement qui doit tous nous interpeller. Il y aura beaucoup d'efforts à fournir. Churchill avait dit à son peuple en pleine guerre qu'il ne leur promettait pas. Tout ce qu'il pouvait leur promettre, c'est du sang et de la sueur, mais qu'au bout, il verrait la victoire. Nous n'en sommes pas à ça. Nous demandons simplement au peuple de consentir un temps soit peu de sacrifice, chacun et chacune d'entre nous. Et quand nous leur présenterons la nature de ces sacrifices, qu'on fasse l'effort de dépassement qu'il faut, qu'on fasse preuve de beaucoup d'altruisme pour que la chose que nous gérons en commun puisse prospérer. Parce que si elle prospère, chacun d'entre nous individuellement va prospérer. Et nous vous garantissons, nous de notre côté, que nous ne ménagerons aucun effort. Absolument pas. Nous travaillerons darrache matin, midi et soir. Et nous ne tolérerons aucun dans la gouvernance actuelle, pour que le résultat attendu par ce peuple puisse être atteint. Et ceci est d'autant plus important que des pays avant nous sont passés par ces épreuves, et sur des dates beaucoup plus récentes. Et ces pays aujourd'hui sont donnés un exemple parce qu'il y a eu le leadership, mais il y a également l'organisation, la discipline et l'engagement du peuple. Je vous remercie pour votre écoute et nous allons passer sans tarder à la version wolof mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant ni ma ko waxee léegi ci bi ñuy door waxtaan bi euh, dañoo daje woon tey pour waxtaan ci tolluwaay réew mi tolluwaay réew mi nag yaatu na gaw ma ni mën nañu peeg lépp dajale lépp waaye li ci ëpp solo mooy li nga xam ne tey buñ ko xaymaa mën naa layal lan moo tax réew mi doxul wala lan moo tax réew mi dox te loolu mi ngi jëm ci koom-koomu réew mi mu ngi jëm ci kopparu réew mi mu ngi jëm ci gafaka réew mi ya des yëpp nag dina ñëwaat ci yeneen waxtaan yoo xam ne dinañ ko yaatal moo tax waxtaan wi ñu tënk ko ci ñaari poñ mooy ñun bi ñëwee ci réew mi lan lañu fi fekk ci koom ci alal gu senegal moom ci koppar lan lañ fi fekk rawatina nag ci yenn aspect yi yenn anam yi mooy bor bi ndax xam ngeen ni réew yi dañuy leb ni nit ñi di rebe waaye leb boobu dañ ko war a teg ci ay charte lu ko mooy rek mun na sànkam réew donc lan lañ fi fekk ci bor bi lan lañ fi fekk ci euh, matadi ci wàllu xaalis mooy yow la nga soxla pour tabax sa kër euh, daanaka téeméer la waaye li nga am yow te moom ko juróom-ñeent fukk la ñu ne la dox diggante juróom-ñeent fukk ak téeméer nag ngay def ba feccali ko loolu lan lañ fi fekk ci réew mi waaye mu am ñetteelu ponc boo xam ne ñetteelu poñ boo xam ne ci alalu réew mi la ci loo xam ne dañ ñoo dañu waxtaanu nag suñuy naataango ñu nangul ñu ñu mën a leb lu ëpp li ñu waroon leb xaalis boobu ñu àppaloon ko ne waruñu koo laal vingt 2024 jotul waaye ñu ñëw bu fekk ne xaalis boobu nee na mes ñetti poñ yooyu mooy gën a fës ndax li mu wund ci nekkinu réew mi dafa bëri moo tax damay jox euh, Al Amin Lo mi nga xam ne mooy jëwriñ bi nekk secretaire général gouvernement mu faram-fàcce leen liñ fi fekk ci poñ yooyu nga xam ne moom laa wax léegi monsieur le ministre ñu ngi lay jox kàddu gi. jërëjëf euh, monsieur le premier ministre. juróomi weer ci ginnaaw peuple sénégalais. yenn nañu yan woon yan ñeneen mooy président Bassirou Diomaye fay boo yanu nag baax na nga xam lin la yan lan la looloo tax projet bi ci boppam li ko tax a jóg mooy jub jubal jubbanti